seen émission maa bëgg rasul sallallahu alayhi wa sallam ci seen sit bi am bi solo fkr 92 point com fondation Kër Rasul sallallahu alayhi wa sallam moo leen di beesal nuyoom ak ziyaaram ak ndokkeelam ñu ànd kook sunu caméraman bu baax bi tabaarakallaahu di Omar Rasul ngeen ànd kook seen soppe seen xarit bu leen yéene yiw lool muy Abdoulahi Mbaye kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel Eh, fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam eh, nga xam ne bëgg-bëggam yëpp mooy rek nit ñi eh, ci kattanu borom beeg mbaaxam ñu man jege borom beeg santaaneem man jege sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy dundal xol yi mooy dundal ruu yi mooy taxit ñu mën a am cofeelu borom bi subhanahu wa taala loolu jamono bu ne mooy bëgg-bëggu fondation Kër Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ci njiitu muhammad abdallah ak ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal tabarakallahu kon nag fondation bi mu ngi yëkkati loxo nuyoo loxo ziyaar loxo ndokkeel ci liggéey bu rëy bu sell bi ñu bàyyi ko muy tabaski di idul adha di tabaski tabarakallahu ngeen xam ne eh, xew-xew bu rëy la eh, bu sunna nekk sunna mu akkada eh, tabarakallahu lënkaloo ak aj nga xam ne mu doon liggéey bu am solo borom bi nag ci mbaaxam ak yërmandeem ak tedd nga am def ci njot bu am solo jaarale ko ci maam sunu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam muy xew-xew bu rëy e, fondation bi nag mi ngi ciy ndokkeel e, xeet wépp mu ngi ci ndokkeel réew mi mu ngi ciy ndokkeel jaam ñi mi ngi ciy ndokkeel tabarakallahu e, natt ngoom yi nga xam ne dégg nga ay entreprise lan di liggéey ci chariatu islami di liggéey ci réew mi fondation bi mi ngi tàllal loxoom di feddaliwaat nag kóllëreem kóllëreem ak sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat kóllëreem ci di beesalaat ngeen di beesal seen cofeel ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fondation Kër Rasoul sallallahu wa sallam bëgg-bëggam yépp mooy seen xel yi seen yëg-yëg yi seen imaan yi dégg nga di gën a bees ci sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te la leen ciy gën a xiirtal nag mooy ngeen di bari lu ngeen di julli ci moom di bari lu ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sooy bari looy julli ci moom tabarakallahu sa cofeel day gën a dolleeku sa bëgg borom bi day gën a dolleeku sa liimaan day gën a dolleeku te al imaanu liimaan ci boppam yasdaadu wa yanqusu liimaan day dolleeku di wàññeeku kon nag booy bari looy julli ci yonent bi nag sallallahu alayhi sa liimaan day dolleeku looloo tax nag liggéey bu rëy bii ñu bàyyi ko muy tabaski nga xam ne njot la njot la tabarakallahu ci doomu aadama borom bi sunnaal ko ci sidna ibrahim alayhi salaatu salaam wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko toppal topp déglul ma ibrahim àndal ma ak moom royal ma ko ndax euh, tawxiidam wéetalam bi mu may wéetal neex na ma tey ni mu koy dox ni mu koy defee bëgg naa ko wa tabi millata abika ibrahim te arab dana wax abbu te fekk mi na mu jaddu dana wax baay te fekk mi ngi na mu maam mu ne nag wa tabi millata abika ibrahim siiwural ma sa yoonu baay ibrahima wii sunna boobu nag Seydina Ibrahima dégg nga tabarakallahu eh, defoon ko eh, muy tër doomam parce que yey ne rendi borom bi yebal Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam ci xikma bu yéeme ci programme bu doy waar ci ñewent goo xam ne diig na ci biir ak ngërëmam mu roof xar mi rocc Ismaila roof xar mi te Ibrahima yëgu ko Ibrahima bi muy dawal paaka bi Ibrahima bi mu dawal paaka bi dafa jàppoon ne moom doom ji la ndax fas yéene def teraanga boromam waaye dégg li ko doom ji wax bi mu ne ko dama gis kat yëg ne jot naa message ci ne naa dama la war a rey jaamoo la yàlla doom ji mu ne ma di ci laaj sa xalaat doom bi na ko loo may laaj ifal ma tu'mar defal liñ la sant sa tajudin insha allah mina sabirin man dag ma fekk ma bokk ci groupe bi nga xam ne nangul nañ seen borom tu amatul ko te duñ wax loolu nag di lu doy looloo tax nag xew-xew boobu nag ñu tër xar yi tër nag yi tër bëy yi tër giléem yi dégg nga jaamoo ko yàlla loolu nag la fondation bi yëkkati loxol loxo xolam ak cofeelam ànd ak Mouhamad Abdallah mi nga xam ne mooy seen président ànd ak dégg nga seen caméraman yi ñoom Omar Rasoul ànd ak ñoom Mouhamad tabarakallahu Mouhamadul Mansour dégg nga ñoom Landing tabarakallahu ñoom Mbagnick ñoom dégg nga eh, eh, alhamdulilah rabbil Moustapha Rasoul ci ma way yoneen sallallahu ma way rasul émission bu am boobu solo eh, tabaarakallahu ànd ak itam tabaarakallahu xaadim seen it dégg nga al oustaz xaadim seen di leen ci ndokkeel ci émission boobu mu tuddee dégg ma maa sopp rasul sallallahu ak Mohamed Sarr émission boobu am solo tabaarakallahu mu di ci def ci biir fondation bi muy kenn du Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak nag eh, tabaarakallahu eh, dajee maxu mi nga xam ne moom itam macha allah eh, mi ngi jël ay gaay ak programme yëpp wax dëgg yàlla pour loo xam ne dana jëme fondation bi kanam ak ay ganam ak yëpp ñoom ñëpp ak ñoom biisoog ñoom tabaarakallahu eh, macha allah la quwata illa bihi eh, alhamdulilah rabbil alamin ñoom ñëpp ak ak rahmatullahi ñoom ñëpp ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax ñoom ñëpp yëkkati nañ seen kàddu nag nekk ci gannaaw Mouhamed Abdallah di ndokkeel ñëpp di ndokkeel ñëpp kon fondation bi nag bëgg-bëggam li ma leen wax mooy bëgg-bëggam mooy seen cofeel ci seyduna muhammad di dolleeku ndax al kullu fil mahabbati ñu xam ne dara néew fi lu dul rasulillahi sallallahu alayhi wa lu dul xadara yàlla rek jus un min seyduna muhammad sallallahu lu dul xadara yàlla lu dul xadara yàlla rek xaaj la ci rasulillahi sallallahu alayhi bu dee asamaan bu dee suuf bu dee weer wi bu dee biddiw yi bu dee jant bi bu dee ndox mi bu dee muy ngelaw leeg lu mu mën a doon lépp lu mu mën a doon rek lu dul lu dul borom bi subhanahu wa taala ak xaaj la ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga yëg na kon yonent bi mooy lépp te dégg nga waykat yi wax nañ ko waykat yi wax nañ ko kenn ku ne wax na ko e, tabarakallahu te moom mooy géej goo xam ne amul tefes wal bahru lam yu'raf lahu qattu saayilu yonent bi mooy géej gi amul tefes loo wax wax ak lu mu mën a mën a mën a doon doo jot xaaju xaaju xaaju xaaju xaaju xaaju fukkeelu junney téeméeri li nga xam ne moom la ko borom bi tagg ndax borom bi moo ne ko ca suuratu xal mi wa innaka la ala xuluqin adimin yaay borom cër bu rëy bi yaay borom daraja ju kawe ji yaay borom maqaama mu kawe mi te it yaa rafet jikko nga gis na kon kon kooku te loo dolli cofeel ci moom lool dolli cofeel ci moom mu gën laa jegeñal sa borom lool dolli cofeel ci moom mu gën laa jegeñal sa borom kon fondation bi mi ngi tal loxo ñëpp di leen ndokkeel ci xew-xew yu boobu am solo eh, di ñaan borom bi nag ñu bari le ko ñu bari le ko lool muy ñëw rek ñu di ci ànd muy ñëw rek di répété wu di ñëwaat di dem di ñëwaat ñu di ko ànd tulluñ ci jaamu borom bi nangul ñu ko ci mbaaxam ak yërmandeem ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, tabarakallahu di ci ndokkeel nag réew mi di ci ndokkeel réew mi réew mi di réewum Sénégal réewum jàmm la te réew mii fondation bi bu ko réew mi amutoon dana ko wuti bu réew mi amutoon fondation kër rasul sallallahu alayhi wa dana dem Guinée jéggi ko fa bu fekkoon ne fondation bi Mali la kon Sénégal dana dem jëli ko Mali wuti ko fa mbaa mu dem dégg nga jox ko loxo bu fekkoon ne Maroc la nekk kadalik bu fondation kër rasul nekkoon Arabie Saoudite kon fa tabarakallahu waaye nag gis nga ko fii la ko yàlla jagleel kon réew mii réewum jàmm la réewum teraanga la réewum yiw la duñ nangu nag kenn di ci dugal loxo loo xam ne lu dul lool lañ ko loolu lañ loolu lañ ko sance mu di ci dund muy réewum jàmm réewum ànd nekk benn di ci ndokkeel chef de l'état di ci ndokkeel première daam di ndokkeel Mouhamed Abdallah président fondation Kër Rassoul di ndokkeel entreprise yëpp di jox ñëpp loxo kon nag dafa mel ni sama caméraman bi Omar Rassoul mi ngi may wax na ma waxtu bi li ci des bariwul tabarakallahu xam naa ñu taxaw foofu rek incha allahu ci kàttanu borom beeg mbaaxam di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp kon fkr 92 point com seen émission ma bëgg rasool ngeen ànd ko seen soppe seen xarit bu leen yénn yiw lool muy Abdoulahi Mbaye di imam fondation Kër Rasoul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.